asalaamaaleykum man la Kat Diatta dellu siwaat fii ci sama waañ Kat Diatta's tey nag maa fi laa leen indil ñu commencé ak suñu kilo yàpp dëwlin bi tam tuuti rek lañu def comme gerte bi dafa am dëwlin moo tax duñu def dëwlin bu bari dañuy rosi suñu yàpp ba mu doore léegi ñu ëlbati suñu yàpp ndax beneen côté bi mën a doore balaa ñu ci def suñu tamaate ak suñu soble bu ñu daggate ba mu sew bu la neexee tam boo amee tamaate njamb mën nga ko ci def man duma ci def tey tamaate njamb tamaate loqati bi rekk laa ciy def waa sama feu nag dama ko wàññi ndax damay bañ tamaate bi xam tamaate dafa gaaw xam te tam dañ koy yëngal fuñ toll di xool te bu la nga sànni ci ci ndox waa def naa ci ndox mais dama ko filmé wul woon moo tax tamaate bi nag dog na léegi dañuy jàmb suñu dege-dege bi man nag sama dege-dege balaa ma koy def ci sama togg dama koy jàmb waaye am na ñoo xam ne tam duñ jàmb seen dege-dege waaw man maa ci taamu jàmb bi rek léegi ñu ñulug suñu maafe café baa ngi bax nànk nag léegi dañ ciy def suñu nokkës bi ñu nokkës ak kànja bu ñu dëbb waaw ngeen baal ma nag filmé ma ko bi ma koy dëbb ak nokkës bi moom dama ko amoon ba pare ci sama frigo nokkës bi kaani kaani salaat la ak euh, laaj ak jinjeer ak laurier yooyu laa ko nokkësee léegi nag ñu def ci suñu épices yi épice konaar bu yàpp bi laa utiliser ak poobar ak konaar bu tamaate bi ak paprika fiime bi moom laa ciy def nii parce que dafay jox maafe bi googu neex maafe gerte bi nag bu la neexee mën nga ci def lëjum comme ni ngay defee lëjum ci domada wante tey moom duma ci def lëjum yu bari pataas rek laa ciy def pataas bu weex bi moom ngeen di gis nii moom laa ciy def waaw boo leen gisee ma ni maafe gerte sànq nag dafa di Sénégal boo nee maafe rek ñëpp xam ne maafe dege dege la wante suñu mbokk gambien ñoom maafe maafe bii doomu daal lañ koy wax maafe dege dege ñoom doomu daal lañ koy wax moo tax ma ni maafe gerte. daa nag defe naa ñaari cin lañ koy wax waaw wala ma rekk rek abi comme ça mu fàttali ma waaye xam naa maa fi moom domodaa la koy wax maa fi gerte bi bu ko toggee domodaa la koy tuddee ah suñu diwlin bi tëmb na sénégalais bi ci man nag mooy wax fu mu nekk nii ndax ñun moom bu ñu toggee te diw bi tëmbul rekk togg bi rafetul xam naa ni nag diw baaxul si ñun te saa yu ma toggee tëmbal diw bi nii rek day fekk ma utiliser huile diwlinu avocat bi walla diwlinu olive bi moo tax mu tëmbal nii wante bu dul loolu moom man moom damay moytu dëwlin waa waaye nag wax dëgg yàlla togg dëwlin bi tëmb nii moom ah rafet na de macha allah tëmbal nañ ci suñu kaani tëmbal def nañ ci tamit tuuti vinaigre ndax maa fi man dama ciy bëgg vinaigre tuuti mu xaw forox def naa ci tamit tuuti nettitu rek dama ko def balaa ma ko doon yekk rek laa ci def nettitu bi ndax bëgguma woon xet bi di xeeñ sama kër waaw maafe bàngoog ñu yekk nag maafe bi nag maa ngi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci Khardiata's Kitchen di seetaan sama vidéo yi maa ngi lay indil maafe bi fépp foo mënti nekk naan la enjoy bu leen di fàtte nag abonné partage ngeen di like nag ba beneen yoon fii ci Khardiata's Kitchen jaa ngeen jëf